salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañu leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee ci seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa bi bio ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93. ji nag ñu ñëwoon doon leen présenté lenn ci sunuy produit pour mauvaise haleine traitement mauvaise haleine bi nag boo leen ko xoolee dafa yaatu ci gémmiñ gi ci put bi ci biir yi infection yi yooyu yëpp dafa nekk li xam te ni ay cause la lu mën a jur mauvaise haleine kon nag traitement bi yëpp lañ lay jox looy broso pour gémmiñ gi moo nekk ni buy dindi lépp li xam te ne day indi xetu gémmiñ comme ni ma ko waxee dafa yaatu am na nga xam te ni ci estomac bi la ñenn ñi dañu am infection ñeenti sachet yi moo koy faj ci biir bi ay garab la yu naan poudre la bio naturel ak li nga xamante ni moom lay àndal ndax nee naa leen mauvaise haleine dem na ba ci ay ngelaw seytaane seen biir day ballonné di rëy te loolu yëpp rek day doy waar kat yooyu day dem ba di feeñ ci sax ci bakkanu doomu aadama ni ki di ko nooyi kon garab yooyu képp ku ko soxla mën nga ñëw fii ci Dakar seen boutique bi yoo nekk Géejawaay arrêt de Balès kër Serigne Lamine Bara Fall mën nga ñu woo ci numéro yi ñu joxe 77 160 93 93 77 160 93 93.